donc dama ne sama tuun gi la Amadou Ba bëgg a mar sama tuun gii la Amadou Ba bëgg a mar <laughs> ma koy buddiloo xoox pour vous dire bien <laughs> waaye man new ma ci caaxaan bu ma jàppee sa bu ma këfee sa ñaari xuur yi ba bés xaw ma doom yi ñooy toog fee ñew ñew mais ki ma këf xuuram yi ba ko nii ba bay boxam <laughs> du xanaa doom yi ñooy fekk seen bàyyi ngi yuuxu boxom maa ngi boxom ñaari xuur seen xuuru baay laay boxom ñoom ñu nekk fee di di foo fekk seen xuuru seen xuuru bàyyi yaa ngi yàqu <laughs> man noonu laa sa sadik laa de sadik laa xam lu may def xam fu mu ko téye di ko dóor ñu nekk ci kaw xam ma xam leen may dëgg seen maam muy saf seen doom yi golo yeeg ah, di foo dem leen laaj seen bàyyi lan moo tax muy yuuxu dem leen laaj seen bàyyi lan moo tax muy yuuxu dina leen wax ni gone geenee moo këf samay xuur ci suuf gone ki jël na samay xuur bu yàgg yi leen li yu ko yi ci kaw xuur kee ngi ci suuf gone gee këf sama ñaari xuur yi lijjanti leen loolu mu ne la Amadou Ba ak Macky Sall jubawuñu voilà ñu bari dox nañ biir France pour jubale leen ngeen laajte lan moo tax Macky Sall ak Amadou Ba ñi ngi France kan moo gis Macky foofu kan moo gis Macky Sall ak Amadou Ba Macky Sall mi ngi woon foofu Amadou Ba mi ngi woon foofu kan nga leen gis foofu eh, réew mi gaa yi ngi ci lijjanti de ñu ngi ci lijjanti de ba Macky di jóge foofu bay dem nu eh, mu tëdd si fële waay Qatar jóge Qatar dem Suisse bàyyi na Amadou Ba France gaa yi di dox diggante bi ñu ngay daw rek mooy borom alal yi ñu ngay dox diggante bi de <laughs> ña ngay dox diggante ba de bu kurti kurti waaye ñun ñu ngi toog tekk tekk xam lépp nag xam lépp def tekk mhm. ñii warta yab yabu ñu ñu waaw bon di leen joxaat beneen information ne leen bërki démb Pape Ndiaye journaliste bu Walf Fadjri mi ngi woon pale voilà mi ngi woon Palais waaw man xale may dékku mais maga daan xale moo may dékku mais mag daan li ma wax saa su nekk rek day ñëw nekk ay dëkk moo tax te lu ma wax bu ma ko rombee du ma fa dellu siwaat bu ma leen waxee yu baari gis naa saa yu sa jamono saa yu ñëwee rek day dëggal waxoon naa leen ni jamono ba bu as yàlla di lem suufam si di wàcc asamaan sam si saa yu jamono di dox yàlla di dëggal li may wax moo tax saa yu gisee benn dëgg rek moo laa waxoon nañu ko même affaire euh, waa ji ñu jàpp nii mais waxoon naa leen ci affaire arme man mu ko déggee muy li armement yi dama ne mais kii kii kii kii fu mu nekkoon ñi bu ma leen di dugal contrat armement ak Koulibaly bu mu koy réception leen arme yi Macky Sall jënd na ay arme dugal na ko ci palais ba wàcce nañ ko contrat yooyu muy liir noonu mais <laughs> man dama ne mais kii fu mu nekkoon kii sa sama ñi may suivre xam ne liñ xam sax xamu ko waxu financement ak armement yooyu noonu ñuy dugal palais Koulibaly di ko signé dugal leen leen contrat yi ci internet bii loolu ban 1900 la <laughs> mu gisee mu koy lire journaliste ki xanaa boobu nag ñu bari leen ba yow kii moo laa wax nañu armement yi bu yàgg ndaw soosu noonu ngeen gis ci télé bi fan yi nii ki euh, Kiné muy wax ay waxu ñoom Thierno Ba Ndom ak ñoom armement yeeg yooyu kañ laa leen ko ciy wax <laughs> kañ kañ fàtte naa ko sax caatat man damay dem sama yoon ba ba réer ngeen doog a génn comme man comme waxu yenentu yi damay wax rek dem sama yoon ba raar ngeen doog a génn ay waaye yenentu yàlla moolaa bi waxoon na ko fi oh, waxoon na ko fi waxoon na ko fi rek ngay dem naa dem naa lu ma la wax takkal téere du du dañ du deñ du dañ donc nag Papa naa lis dugg na pale palais barki démb ci porte bu ndaw bi fekk fa gendarme bi sol masque turam nekk fa ñu liir turam mu dugg ci biir Papa Coro dugg na palais de la république démb ci ngoon ci ngoon papa bërki démb bërki démb la ci ngoon Papa mi day digg ndakaaru journaliste Walf bi day ndakaaru di ko wax waa Walf Papa Ndiaye dugg na biir palais bërki démb ci petite porte bi sol masque masque coronavirus yi bu bëla sol masque coronavirus yi bu bëla kanam gi nekk gi kii ba mu ñëwee ca bunt bu ndaw ba gendarme bi ne ko kii du Papa Ndiaye mu ne ko man la mu xëy mu ne ko dama am rendez-vous fii ci biir pale ñu liir turam xool dugg mu dugg fa ci biir palais Papa Ndiaye journaliste dugg na biir palais ngi woon ca biir palais di dóori ay dilu biir palais Papa Ndiaye journaliste bu Walf j'interpelle Walfadjri j'interpelle euh, euh, l'opinion nationale que dul Ndiaye journaliste bi waxoon ne daa yor ay bazooka ki bomba ki missile dugg na biir pale ah dugg na biir palais am na fa presque trois heures quatre heures de temps génnaat mi ngi sol masque nag nee na yoo dee na butu nee na yoo dee na butu waa xamul ñu ñun suñu radar yaa ngi ca buntu ba ca bu muy dugg ba jour gendarme bu porte bu ndaw ba ba gendarme bi di wax ak moom bu muy dugg ci biir lépp ñu ngi ko topp ak radar nee naa ko dama la marquage à la culotte Papa Ndiaye munoo fee wax dara léegi nag la nga fa defi ci loolu laa nekk jamono jii nag mais ba ngay dugg lépp ak sa masque. sa ji nag la nga sol chemise ak lépp maa ngi la topp léegi li ci des nag mooy fu nekk nii maa ngi ci waxtaan ba nga def biir pale te incha allah danaa la ko indil ne wax nga fa lii ak lii ak lii tontu nañ la lii ak lii ak lii la nga fa signé yëpp lii ak lii dinaa la ko indil mais pour l' instant may alerté wal fajiri def leen attention Papa Ndiaye ki day dégg Ndakaaru dugg na biir pale bër ki démb ci ngoon sol masque coronavirus ñu yemagum foofu ñu avancé sénégalais yi di leen wax ni concentration ci suñu combat bi ci suñu combat bi dara du ko yàq te dinañ ci am ndam lu rëy allah kulli àll jël leen seen carte téye leen taxaw leen bu leen ci boole coow bu leen ci boole golo yeeg ñu ñu leen di tardiloo focus leen rek focus leen ci li ngeen nekk am ngeen fulla am geen fayda yéen ku leen yàpp mbañ gàcc gi dafa taxawagul Ablaye Wade bi mu leen di yàpp mbañ gàcc gi dañ ko tulli wulli ndulli topp Macky Sall ca mbañ gàcc gii bu jeex na jeex na amul kenn ñu fu wax jeex na nga toogaat fi Abdou Diouf ba ko sénégalais yi ne jeex na nag fa la jeexee toog na fi lu yàgg nag Abdou Diouf dafa toog a toog di xeex Ablaye Wade di tëj sénégalais ba ñu jógee ne jeex na lañ ko jeexal 2000 jël Ablaye Wade teg mu dóor 12 ans di njaaba njalle bañ ko nee jeex na la jeex Macky Sall dóor 12 ans bañ ko nee jeex na dara mënu ko fee indi. dara munu ko fee toogloo daray àdduna munul tax mu toog fi barke alxuraan kooku moom ak loo yëpp sénégalais jàppal ni bu paree ci yow pare na bu paree ci yow dara munu ko dugalaat ci yow te loolu xeeñ na partout mbedd ma sonko lañu wax kër ya sonko lañu wax asamaan sa sonko la wax suuf sa sonko la wax dara munul fexe ba Macky Sall ak i ñoñam gañe dara munu ko fexe moo tax ña ngay reyante seen biir di dóorante seen biir ak saagante seen biir ñun nag ay nit lañ ay nit laay waxal bokk ñoo xar yi bokk ñoo bëy yi bokk ñoo mbanqux yi nga xam ne fu ñu dajaloo séegé naaw saagante nday fii xel a fi daw macha allah di sant di gërëm encore une fois patriote yi billahi wallahi sama waa kër yépp ay patriote la te bu ma amoon benn ci sama njaboot nga nekk lu dul patriote ma bàyyi la àdduna ak alaaxira xar jàppee la xar wala bëy bëy yi ñooy dañuy dajale ñi mbëkkante ak xar yi di dóorante ay béjjën loolu nag fan nga koy gis xaaj ya xar ya bëy ya mbaam ya nga xam ni fu ñu dajaloowee séese naaw saagante ay ndey ñooñu du ñuy nit donc ngir yàlla bu leen gisee ab xar bu dugg ci sama live mu di mbee bu leen koy tontu bu leen di bind maa leen koy ñaan nit du tontu xar nit du tontu bëy nit du tontu xaj xaj bu ne mbow nit waru ko tontu boo koy tontu doon xaj boo maa ngi leen di ñaan man en ce qui me concerne bu may live ngeen gis xaj bu dugg wala mbaam bu dugg ne mboo wala muus bu dugg ne ñeew ngir yàlla bu leen ko tontu ay mala lañ ñoom bu boo leen gisee fu ñu dajaloo dañuy mbëkkante dóorantey seize deret ba di tuuru saagante ay ndey bu ma xante donc ngir yàlla fii du enclos yëfu nit la bu leen ma tontul benn xaj bu leen ma tontul benn mbànquux bu leen ma tontul benn bëy bu leen ma tontul benn mbóot maa leen ko ñaan war a rasuuli seen wax yépp mbee la mbow la mm, ŋaa moo tax duma ci intéressé wu ma duma koy tontu kon maa ngi ñaan képp ku ma jox cër nga bañ ma tontu benn xaj wala benn mbanxuux waaye benn bëy bu jógee ca ankulo ba jaxasoog nit yi dinañ ko xamal ko fii ay nit a fi ne desal ak sa mbóo ak say mbee nga xaar sa beneen moroomu xaj bu ñëw bu la tontu xaj mooy tontu xaj xaj ma na mbow beneen bi ne mbow mbow mbow mbow mbow mais xaj du mbow nit na mbow xar du ne mbee nit na mbee respect respecté leen seen jëmm yi respecté leen seen jëmm naw la leen nit yi te bàyyi xaj yi ak mbaam yi nga xam ne fu ñu dajalooyee fu ñu dajaloo dóorante fu ñu dajalooyee saagante fu ñu dajalooyee deret tuuru chaise naaw ñu dóorante ndax amuñu bopp ay mboo mbee mboo ay mbaam xuux lañ ay xaj lañ ay bëy lañ fon foofu laa yem ak yéen ci loolu ñu continuer donc yéen nit yi yéen nit yi baax yi nga xam ne yéenay patriotes yi foo leen dajaloo xel moo fay daw xalaat moo fay daw maanaam combat combat